Euh, lu ko jiitu dama waxoon ne xaw ma ci plateau laa ko waxe woon xaw ma mhm. samay nit laa ko waxoon mhm. Sonko ñi ngi ko woo mu war a wuy ji siis sec siis sec mooy ki nekk xorfatu samaniya ci huitième cabinet waaw waaye duñ gisante mhm. duñ toog waaw Sonko jóge na këram taal otoom na day dem ci siis bi waaye mujj ñu toog ñu fa jógee juge boobu daal di démissionné bàyyi. Hmm. ci lu gaaw ñu dugal ku ñuy wax sàmba Sall mu ñëw yor dossier bi. ci laa la wax ma ne la sàmba Sall kat dafa dafa bett dugg moo tax mu toog ak Sonko. Hmm. waaye ah, sii fural mbiram nga xool ba ci kanam. ci nga ma wax ne ma ah ma ne la waaw dinaa toogaat fii. dee ko topp rek nga di xool ki ñuy wax Samba Sall. Hmm. loolu nag nekkul ne Euh, bu amee maanaam ni ma ko waxee woon bu amee dafa nekk lu ñuy ndamoo wala dafa nekk loo xamante ne ñun ñoo ko def. Mm-hmm. wala dara waaye lu ñu xam la rek mu nekk ci suñ biir liggéey ñu di ko wax. te loolu yaakaar naa ne jiituwuma ci sàmba Sall. Mm-hmm. njëkk na fii ma toog fii nga laaj ma ma ne la coon sekk. dafa am liggéey yu nekk ci xolam. dañ ko jàpp ci xol bi ak ci yaramam. Mm-hmm. bi ma ko waxee yàlla dogal coon sekk ñëw émission balance dëggal ne. fima lal laal sama loxo muy metti sax fima sama moy metti après yow nga wo cion sek wa wo na ko jox ma jox ko ko sama numéro ne ko nama wo cion mm-hmm. dima di ma jotuma ba nga wo ma yow ne ma wuyul ki lay numéro yomb numéro bu yomb bobu dila wo cion la ma wuyu ko waxtan ak mom muné ma man damay ñew ci yow nga dimbali ma dal parce que li nga wax ni effectivement mo mm-hmm. nek ci man mm-hmm. ñu joggé ci way yalla mi dara tawul defna jotaay bobu mujjul am mujjul ci tégué lu man ñaari weer ñetti weer xamna mu daal di génn hmm. kon donc du taxaw nga ne man ma ray cion sek waye amna luma gison ci mom tok fi wax waaw du ko tamit yakarna Ousmane Sonko togon na fi avant japp bi di am ak yep waxon na amna luma luma ah, waxon fi na jóg ci bi fi joge waxon na la seigne bara genn wona waxna manema ma ne demal nga wax nga wax ak fexela wax ak Ousmane Sonko bama dox ay jéego pour wax ak Ousmane hmm. mais hmm. lu ko euh, capitaine Touré waaw Basirou Ndiaye mi nekk section de recherche mi ngi may dégg ànd na ma ak moom ay yooni yooni yoon ñuy dox pour man ma jóg dem fekki capitaine pour dimbali ko mu bañ a démissionné parce que man xam naa li ko dal xam naa lan la te xam naa ne mën naa ko koo dindil mm-hmm. Basirou Ndiaye mook moom ay ay naataangoo lañ yooyu liggéey mm-hmm. man mii ak moom dox nañ ci lu bari loo xam ne doo ko mën a wax ci tere may yàlla dogal na mujj ñu gisante man ak capitaine mm-hmm. ba ci Samba sàll mii. am na magistrat boo xam ne. dama waxoon sax ne la dama ko dama laa waxoon nga ne ma bu fi tudd tudd kilifa yu mel noonu waaw message yi ñu esasante mi ngi nii wax naa ko ma ne ko woo naa ko téléphone ba mu soxnaam laa woo mu jox ma ko ma ne ko bu fekkee xam nga Samba Sall wax ko mu jéem a nu def la tout def ni si sekk def mooy mu génn ci dossier Sonko bii hmm. parce que man li ma ci xam su ci avancé hmm. boo moytuwul du bax ci mom waaw ta wax naa ko ci ay wax yu nga xamne mo moo leer parce que telem nit mënu see tok di wax yenn wax yi am ay mbokk di am di sa mbokkum sénégalais di sa mbokkum julit mm-hmm. ta waxu télé dafa doy war mm-hmm. waye leeral na ko lu bëree bëri mom magistrat bobu bima ko ko mi ngi mu message ma jox ma numéro personnel am na ma li nga wax c'est très important dina fexé def le tout li nga wax samba dina ko dégg dinañ xol nuñ def ma ko même bu féké mm-hmm. liggéeyam mayu ko mu génn ci na taxaw ci yaramam mu lu ci Sino du gën. lolu man waxna aku ko mu ngi ni message yaangi ni meuna lako won la ko wan. waaw te juge man mi ngi may wa deug la. kon man suma sañon li am du am. deug la suma sañon li am du am. parce que ba ma ba pare man jéem na ma dox ay jéego pour dimbali Samba Sall pour lima ma mu bañ ci dugg. wa mais nak euh, jam ak. pexem ak kenn ku nek nak mm-hmm. fa yalla dogal sa bis. non mm-hmm. non la yalla non la ko yalla tëralee. wa waaye pour leral rek euh, non la lépp nag dafa nekk loo xam ne dossier politique la. waaw mm, ñu bari ñu ngi ci dugg. Mm. di doxal. Mm. ñun ci liñ nekk di ci liggéey. dafa am lu ñu ci xam. loo xam ne loolu duma ko wax pour bàkku du ma ko wax pour lii waaye bi ma xàmmee sama ba ma ci laa judd ci laa yaru ci laa màgg donc man xam naa ko. waaw ñu bari nag dangay toog ci télé nga wax. Mm-hmm. duñ ko jàppee waxi dara. waaw ba mu ne tëll. ñu ne voilà gis nga ko mi ngi nii. dëgg loolu. Hmm. moom mooy mooy problème bi. waaw xamoon naa waxoon naa te affaire Sonko bii noonu laa ci gisewaat yeneen yoo xamante ne. Ah, ah, ah. non non dama lay wax rek. waaw du ma xam nga affaire baatin nag. waaw nga ko toog ci télé sax di ko waxtaanee. waaw mais noonu nga ciy gisawaat yeneen yoo xam ne tey. su hmm. fekkoon su dul su fekkoonte ne lu dul télé. Hmm. di nga mën a wax di wax nii. ne nangam nangam nangam. yu bëri. waaw waaw. kon daal. waaye nag dootuma ci waxati nag. dootoo ci ci ci côté aspect mystique. non mais waxoon nga ni di nga ñu leeral. ci loolu bàyyi naa mystique lu tax nga génn. dama koy bàyyi. Ah. waaw. ah Cheikh Bara yaa ko fi liggéey woon di. yaa ko wax léegi. mooy sama liggéey mais nag dafa am. lii moo la fi lasraar moo la fi indi. yow li ngay wax ci Sénégal yëpp xam nañu ni bu doon yow deewu ni dafa ne sa loxo doo ko rey mais dafa am lu la yàlla wan yàlla xam wallahi asim woo naa masistara waaw waxtaan ak moom ba message ma ay message dëgg la waaw ma numéro bii sama numéro personnel la xàmmee ko fu ma la téléphoné rek wuyul. Mhm. mu ngi nii la message sama pare. paree. la donc kon man rayuma kenn. d'accord voilà te waaw da ngay toog par exemple. gis dara lo xamante ne daf lay wóor ne lii. Mhm. ku jox kaamin gis nga Ousmane Sonko keroog bi muy jëm ci Zizek. Mhm. mi ngi ma fekk ci man ak ñu bari ma ne jox kaamin ma Ousmane Sonko bi parce que lolu mystique la bo xamne dafa leer nañ ki ak ki duñ tok di wax ki li juge Samba sal yalla ko ray de waye bi sababu sihr manam dañ ko liggéey mu de hmm. lolu mom mo am hmm? oui jeulal le 8 mars la tok ak Ousmane Sonko le 8 avril la fat même heure bi mu toog ak Ousmane Sonko japp naa ne même heure bobu ci la génn àdduna hmm? oui waaw kon am na lu nga naan ay hasard la azar la ni dedet hmm. du azar mystique dafa am lu man lo xamne da ngay taxaw ngene li hmm. li du am. li du fi xewé hmm. ta effect te te kenn mën ta wax ba xewal ko ko bëgg xewalit xewal du moom yow man la baña jik oui. Ah. oui. te bo ta amo koy man gis na man. waaw ma waxati sax gis naa Farba Ngom man ah, ah, far Farba Ngom men waaw man gis naa ko mu yor ay picci yu beuri waaw ah picci jek jek recc diko lek bam daan eh no gis naa ko Farba Ngom al asim <laughs> te xam nga loolu picci xaw xaw ma loolu non gis naa ko Farba Ngom taw loolu worna ma ne suma ko top suma la ko detaillé won da ngay lay li ci ci affaire am na yoo xam ne sax jërëjëf di leeral leeral leeral mais loolu gis naa ko. kii sobaar euh, kii gis naa picc yi di ko jàpp ko di ko lekk moom ci boppam. waaw loolu mooy lan la si moom moo leen yore woon ñu rëcc ko. moo la yoroon picc yi picc yi rëcc ko. loolu loolu mystique boo def la mu contre la. loolu mbaadu. lu dellu ci mystique booy def la mu contre la. ah bu fekkee am. lu mu def la mu rëcc mystique booy def la mu contre la. picc yeeg tourné ci ko laajal keneen ku am xam-xam koo wóolu. farba ngam de xam naa Cheikh Bara macha allah li nga wax noonu doy na Cheikh Bara ñu jublu nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax election yi nga xam ni ñii ni naan nii ñii naan ñii naan nii ñii naan ñii naan paaw ñu jéggi at mi ñii naan ci biir at mi ñii naan jéggi at mi ñii naan at mi rek yooyu tamit xanaa ay mystique laak yooyu ak noo gisee li nga xam ne moom la ñuy wax affaire élection yi fi mu waa affaire élection ci Sénégal. Hmm. Hmm, jàpp naa ne lii am ci élection municipale yi moom mosul am tardement bu mel noonu ci élection li ko waral nag mooy euh, dañoo jóge ci élection deux mille dix neuf. Hmm. Macky Sall génn à cinquante huit pour cent foog naa xaw ma cinquante pour cent. waaye man damaa bokk ci ñuy wax ne élection yooyu Macky sàll gañewu ko te leer na ko ne gañewu ko. jàpp naa ne résultat wu ñàkk a gañe gi tamit mooy ñemewul a tëggaat ay élection fi léegi ba pare. waaw que boo seetloo bi mu jógee ci élection yi su fekkoon dafa gañe mhm. immédiatement day dem defaraat tëggaat élection yi gañewaat leen làbbaliwaat pour mën a jël maire yëpp toog ci pour jekku mais da ngaa gis ne dafa toog rek daan ne bi ñoo wax ne fichier bi baaxul kon donc dañuy auditer fichier bi pourtant opposition bi noonu lañ doon casser parrainage bi te teewul def ci xuus def ko. waaw def ci élection. dëgg la su opposition bi nee nañ fichier bi baaxul rek duñ dem ci élection ci fichier bi rek kon léegi ñun duñ ko organiser mooy daw guerre bi. Hmm. Hmm? léegi ñu dem ba année bi ci topp bi ñu waroon a wax ñu ne corona bi moo ko moo ko toppale hmm. léegi man li ma gis mooy Euh, Macky Sall dafay dafay pousse élection yi rien pour benn mooy jekkas ni ko ci wàllu politique. Hmm. wala mu couplé ko ak élection deux mille vingt quatre yi député yi. mu couplé deux mille deux mille vingt deux yi. yu député yi. Hmm. loolu laa gis. loolu léegi nag. Hmm. couplé bi moom ala kulli alin baaxul ci opposition bi. parce que su ko defee. dafay jaxasoo ba pare daf koy may atu. parce que li ma gis mooy même bu fekkee. rëcc na ci municipal yi. waaw Euh, député yi moom dina tàng jër jër jër jër jër parce que Macky Sall élection municipale am yii moo li tax mu gën koo ragal a def nag. ci moment bi lu tax mooy xamul ba xam. Hmm. naka la askan wi. gisee ko léegi. Ah. voilà malgré bi bi problème effectivement yi jàll bi mu amee jàllee ba pare. Hmm. su ñëwaatee. Hmm. ndaka lañ koy def. loolu jaaxal na ko. waaw bi ci des mooy Ousmane Sonko ci boppam dafa mën a nekk surpliste ñaari côté yëpp. Hmm. mën nañoo ñëw élection législative du gagné lu bari mën na non municipal du gañe lu bari mën nañoo ñëw mu gagné lu kenn xaarut woon. waaw léegi tak maanaam réer googu nga affaire bi réer. Hmm. moo tax état bi xalaatul def élection yi tànk jekkandikuwul. Hmm. wóorul wóorul ci moom mbiru Sonko ko dal ci xelam. mbiru Sonko bokk na ci li ko téye. parce que Sonko tey moom ci boppam xamul naka lan lay peese. ci politique parce que tay mm. Sonko mo gëna populaire Pastef hmm comprendre nga man nga baña a bokk Pastef ba nopi nek Sonko waaw municipal man na ñew kiñ la wateeloo ci ci Thiès wala Kaolack ki fa Sonko tek do ko wateel waaw waaw lolu mën na am mën na am nga wateel ko lolu d'accord mais élection présidentielle tay bu ñewon mën nga mi ngi melni biram Birame yakarna mo nekkal Sonko Thiès waaw mën na ñew nga jël Idriss sek wateel ko do wateel biram Souleye da mm. fekk yow Sonko nga doo Pastef mais sonkoo nga. loolu dafa am. bi ci des mooy hmm, bu dee Khalifa Sall moom état bi recadré woon na ko ba téye ko. mais li am solo tam xam naa. bu ñu ko bajantu nag day gudd mais xalifa Sall li am hmm. solo mooy. ak Sonko yëpp suñ bëggee am résultat yu bari. ci élection yi nañ ñeme ñu def coalition. Hmm. oui allié yu dëgër. mooy tax nga mën a am dara ci municipal donte con euh, président euh, élection municipale nekkul luñ mën a natte ab leader. waaw ba xam foor nag parce que wala foorut moy comme lima la wax legui waaw waaw biram sulay boudé mok Idrissa sek ñoy ñoy ñoy ñoy xëccoo ties xam nga mënu ko gañe hmm. ties mais hmm. wourna na la le bu fekkon tane élection présidentielle la Sonko mëna naa gañe Idriss Seck biir Thiès. waaw loolu dëgg parce que loolu Sonko la. waaw boudé fi nak da fay aju ci capacité ki nga tek ci localité bob waaw loolu loolu daf ci am. Hmm. mais nak Macky Sall dafa am technique bu graw bu mu yor. muy ban. mooy. Macky loolu moom miracle am la. Mm. loolu am na miracle nag. Macky Sall mooy. Mm. nit ku lay xas di la xas di la xas di la xas ba mu yàgg mu xëy wàññee ko di la tagg. loolu moom daf koy daf koo barile. <laughs> ñoom Idriss Seck. koo barile. daf koy am ci Idrissa am ko ci Farba Senghor. am ko ci Aïssat toujours kay. waaw Aïssat loolu moom man damaa xamul miracle lu mag xaw ma lu mu doon. Mm. mais toujours Macky Sall mën na laa indil surprise. mooy nit ku ŋànk di ko xeex xeex bu ne. xëy xuba wàññeekuwaat topp ci moom te dañ na ma ki tàlliwul du joxe xaalis man xaw ma lu tax di ko def loolu jaaxal na ma bu moy moy mooy mooy contraire Idriss Seck Idriss Seck la nit di tagg tagg bu nekk hmm. suba di ko xas hmm. waaw soo ko xoolee waaw waaw waaw dëgg la wow wow contraire u Idriss Seck dëgg la Macky mirah miracle am boobu moom mën na ko utiliser ñëwaat ci municipal yi mais en tout cas législatif ak élection présidentielle moom du yomb ci moom bi ci Macky Sall élection municipale su ko ñàkkee. Hmm. moom mbay boo mu lem ay saagam dem. ah bon oui day continuer di ñàkk élection yi ci topp. surtout que nag mu ñàkk ville yu mag yi comme ni fab Pape Laye Wade amee woon defee woon. Hmm. su ko gañee ah. boo moytuwul mën nañu roofaat troisième mandat boobu mu doon jéem a roof. Hmm. mais bu ko perdee est-ce que. su ko perdee moom day far day far lese deux moom day far lese deux day xam ne ah. ba pare na. waaw ah, kon loolu sénégalais war nañ ci bàyyi te élection tamit maa ngi ñaan état bi ñu gaaw def ko parce que élection mooy poumon wu réew day souffler réew deug la réew année électorale bu jotté da ngay gis 2018 2019 deuk bi day tang jir mais suñu défé élection kenn ku nek gagné kenn ku nek xam li nga am ñu positionner wat hmm. deuk bi day noy, ñu doxat deug la xoj ay élection bañ ko def fay tal deuk parce que deuk mi ngi mel nga wara noy noyyi noyyi waaw deug la hmm. deuk bu fat Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah li nga xamanteni bi moom nga wax fofu leer na tamit amna solo ci fat googu ñu ngi nuyu wala ñu Cheikh Bara Euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne bi moom la ñuy wax <laughs> moom la ñuy wax euh, li nga xamante ne bi moom la ñu gis ci fa fan yi euh, nga xamante ne bi Maty Trois Pommes génn na def benn sortie sortie bi nga xamante ne bii moom la def euh, dal na ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy waa Pastef. Mm-hmm. nee na dégg nga dañoo nekkee benn terrorisme bu ñu nekkee ci biir internet bi di wax loo nit ñi maanaam ku waxut lu leen neex ñu dal ci sa kaw loolu nekk na loo xamante ne bii moom naqari na ko lool te nee na kenn mënu koo def lool loolu parce que moom daal li muy xalaat lay wax te pare na pour nekk SDF expliqué ci lu bari noo jàngatee waxu Mati 3 bi. waa xam nga sax du yomb nga toog di wax ci Mati trois pommes wala yooyu. Hmm. mais mën nañoo ñëw rek. Ah. Euh, li saaga yi nekk ci internet bi. waaw parce que Mati moom euh, man li ma jàpp ci moom peut-être nag amul. mais dafa am nit ñoo xam ne euh, xas nañ ba exister ba pare nekkoon nañ ci tele yu mag yi jàddu nañ ay responsabilité ba pare. Hmm. léegi ñoom li des seen mission mooy bu ñu fay. maanaam hmm. nañ continuer di exister. Ah, ah. loolu nag lu mu laaj. nañu xew ñoom dañ koy def bu laajee ñu cokkaas murid yi ñu yuuxu leen bu laajee ñu cokkaas waa Pastef ñu yuuxu leen pour ñoom rien que rek nañ fiy nekk man dama gëm ne stratégie boobu rek cokkaas lay joteeg waa Pastef mais boo ko xoolee sax bi mu doon wax da mel ne kuy xuloog air bi parce que da xam ne wax ji tàmm du am ci tàmbaleewul ci bopp tàmm am euh, yëpp maanaam amul bopp amul geen mais dañ koy wax rien que mm. xam naa ne Pastef nii nii nii mm. te Sénégal ñoom ñoom la euh, su ma leen cokkaasee danaa am ay retour waaw comme tey yaa ngi nii laaj nga ma waaw loolu daf koy def rien pour continuer nekk fi di nekk fi voilà mm-hmm. intelligent pour loolu kenn lay ko bañal voilà <laughs> naa la loolu la mais mm. bu dee saaga yi ci internet bi xam naa sax mm-hmm. temps bi mi ngi dem waaw saaga yi moom. Mm. Euh, damaa jàpp ne phénomène la rek. parce que 2012 ak léegi sénégalais yi dañ fee sensé. parce que 2012 mm. ñun ñëpp amuñu woon YouTube amuñu woon WhatsApp amuñu woon yooyu. waaw am nañ ko léegi ñu ngi koy utiliser. Mm. kon donc ñu ngi ciy jàngat ne nii la sénégalais yi mel dëkk dëkk parce que lu ko jiitu. Euh, kenn mënta woon a làqatu ci roq di saaga xalifa général. wala di saaga ministre wala di saaga député. tey mën nga ko am nga possibilité bi. kon yaa ngi koy def. saaga yi nag damaa jàpp ne moom boo nee Sonko la moom loolu moom mm, xaw ma nu ma ko mën a waxee parce que tey man sama seen man. Mhm. def gis info. Mhm. bu ma dugalee vidéo xalifa général de Mouride damay cliquer. Mhm. Euh, nu mu tuddati dañuy tëj commentaire yi. waaw gis naa soxaay bu mii da koy def. kon wóor na ko ne moom bu bàyyi woon xalifa bi wax ñu bàyyi commentaire yi ñu commentaire ci kawam di nga ci gis ku ko wax lu tegginuwul. waaw loolu kon sénégalais yi ñoo mel noonu. mais bu fekkee saaga yii moom takkar naa sa ci dëkk bi. bu fekkee Sonko moom moo am doole yi di saagaloo booy. waaw kon deux mille vingt quatre deux mille vingt trois élection législative yeeg lépp. béyee boo ñu xam ne Sonko da koy gagné cent pour cent cent pour cent. bu dee moo am doole jooju moom tifaar yi ma gis fii yëpp bu dee Sonko. <laughs> kon Sonko kon Sonko moom béyee boo ñu bàyyee ko dëkk bi. ñii saaga ñëpp bu dee <laughs> bu yeboo ñu bàyyee ah, ko loolu da ngaa bëgg a wax ne kon moom moo gën a populaire ci Sénégal ah oui ah oui ah moo gën a influent ci Sénégal parce que ah. yow nit nga bëgg ko sax garaawul mais mu lay saagaloo ngay saaga waaw kon kooku da ngay wan ne kooku moom na la def na la ni Ah oui waaw ah oui moom loolu la bëgg wax. Ah oui la bëgg wax <laughs> waaw. macha allah Cheikh Bara Ndiaye borom def gis eh, ci li nga xamante ne bii nga ko ca la nga xam ne mo moo ki mati mi wax ne ndeysaan dafa bëgg a dee kon ndekete xam naa hmm, ku bëgg a dekki la moo tax mu daa dee doxalee noonu nga la ci sa analyse bi nga xam amal ko Cheikh Bara nag tey yaa ñu ko digoon moo ñu bëgg rapidement. ci li nga xamante ni bii mooy zikkar yi nga xam ni weeru koor lan nga ñu indil tey ci weeru koor gi parce que yaa ñu ko digoon ne koor gi am na noo koy doxalee waaw li nga dese ci ay minutes waaw donc sept minutes de koor waaw hmm. ah, awalan léegi keroog waxtaanoon nañ bëggoon naa ci gën dinaa ci ñëwaat parce que hmm. dafa intéressé ñu bëree bëri affaire sangat yooyu ma doon wax sangat waaw sangatu jooni jooni yooyu ma doon wax mooy sungur fu wert bu xonq hmm. bu xonq ak bu weex nga xam ne bii bayre la bii affaire wërsëg xaalis bii Eh, dindi rap dindi cat dindi teju hmm. non la demé waaw légui nak eh, dinañ ko dinañ ci ñëwaat pour gën ko léral parce que da fay tal doomu aadama hmm. da fay indil bayre ak wërseuk ak ubbeeku gu yaatu hmm. koko mom lu lér la sunguf dafa nek li nga xamné boko sango bala mat 24 quatre heures su dee sunguf bu baax la da nga gis effet yi waaw mat 24 heures du ko mat parce que lool liko def moy doomu adama lool mais nit rapport bi mu am ak sunguf amuko ak alcorane sunguf oui parce que nit sax sunguf su tok la. sunguf su ndax gis nga nit yaayam day lek pom kon suka sunguf. nit yaay ak bay wa day lek pom wa orange. Mm-hmm. ben euh, euh, mbok lo lepp boko xolé ci garap la ke wa deug la ñu lek ko mu nek dret mm-hmm. nek maniyu mm-hmm. jur ci dom wa kon dom joju dorisinam. wa mi ngi ci garap gi la jógee. wa sunguf dégg parce que ay mbir yu jógee ci garap rek. ño dajalo jur. su jëlaatee sunguf moom mënoo ko am lu dul da dem ci garab su hmm. jëlaatee ci li nga xam ne ci d'origine am la woon su ko laalee effet bi muy def ci moom hmm. defu ko ci moom ba pare tamit alxuraan garab moo ko fi jiitu àdduna hmm, bi garab a fi jiitu waaw te garab dafa nekk lu complet maanaam garab waaw dafa nekk lu complet garab waaw yooyu dinañ ci ñëw gën koo leeralaat waaw su ko defee euh, tay ñu ñëw di ndokkel ñëpp ci wéru koor wi mm-hmm. di faté na nak jaaré sayidina Omar gey bun xataab way juroom bu goor yu fi jóge tam daan bokk ak ñun plateau bi yalla nako yalla yërem yërëm euh, ko aljanna euh wéru koor mm-hmm. ñi ngi ci ndokkel julit ñëpp di wax rek suñu borom subhanahu <laughs> waaw kat euh, yegale <laughs> sax ba sa jox bay bu ma dem bàyyi <laughs> loolu moom. waaw euh, wàññi boobu moom sooy boo la ko jox. <laughs> boo koy wàññee <laughs> euh, léegi nag euh, koor moom dafa nekk loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf koo digal jaam ñi. Mm-hmm. la'allakum tattaquuna ngir ngeen ragal yàlla. Mm. waaye ragal yàlla nag. du yàlla seen yàllay daw wala yàlla seen la ngay daw déedéet. Mm. la te tàqu na dafay dafay tolloog rek ngeen nekk nit ñu dëggu. parce que koor rek mooy ma ne ma ne nit dëgguk nit ki ci digganteem ak boroomam. ndax da ngay toog sa néeg. Mm. lekk ne fi. naan ne fi. Mm-hmm. mar ne fi xiif ne fi. nga nekk yow ci sa néeg képp mm. yow ak yàlla. Mm-hmm. nga xam ne xiif a ngi nii mar a ngi nii. te naan ndox a ngi nii lekk ngi nii te doo ko lekk. li koy fajee kooku nag dëggoog sa borom dong moom la mën a indi. wallaay wallaay dëggu nag dafa nekk loo xam ne mooy sirru mbir yëpp. sirru kuy kuy kuy maye soxna sax te dëgguwoo ci. boo hmm. moytuwul du jàpp kuy julli te ci kuy dugg ci diine te dëgguwoo ci. dëggu hmm. mooy. Hmm. sirru mépp mbir. dëgg la kon ñu ngi ci ñaanal ñëpp ñu am ci yiw. su ko defee tamit guddi naafila yooyu ñuy naafila baax na dem ca jàkka ja naafila ji. coow coow noonu waaye nag naafila bi nga xam ne da nga ciy wut sa boroom ak yëkkati ko ci yàlla ak sa xol daj yàlla. Mm-hmm. nga wét di ko def moo gën nga def ko ci digg guddi moo gën. digg guddi waaw. mooy heure xëdd. heure xëdd te bañ koo mm-hmm. bàyyi tamit ci koor. Mm-hmm. képp koo xam ne da bëgg am ak yéeg ci yàlla ak sa xol sa ruux ñemeñ ñemeñ nga xam ne da ngay am yaqin ci sa bopp. nga xam ne bu ñu la la woon dee day ñëw tey dalay lay wóor na yow mën na doo lakk. loolu nawaafil la daf koy def jaam. mooy na du julli guddi. julli guddi waaw. léegi nag loolu lu mu gën a guddi trois heures du matin ba quatre heures matin ba deux heures du matin yooyu yëpp mm. nga wéet yow dong lal sa sijaada julli julli ju teewlu weekend wala ci sa digganteeg yàlla noo waxtu wu mën a doon rek nga xam ne da julli rek boo noppee dem tëdd waaw daf lay may ak yëkkati ko ci sa digganteeg sa borom léegi nag tey gii si li may joxe nii mm-hmm. mbir la moo xam ne képp koo xam ne yàlla dafa dogal ak ñàkk nga bëgg mu jaar nee nga jaar nee ak ñàkk ñàkk waaw nga dund ci àdduna mm. ba faatu te doo mm. gumba doo mm. lafañ mm-hmm. doo pat say bëñ du wat doo am benn manquement ci sa dund tey di nga gudd aw fan tey bu dee góor dina faatuwaale ngóora ah, waaw waaw insha allahu taala tey lu yàlla dogal nga génn ci sa yaram maanaam muy doom muy njaboot day barkeel lool yi laa bëgg a joxe tey muy yaa xayu yaa xayu yaa xayum yaa nag hmm. boo ko firiloo rek xam ne maanaam lii ma la wax yaa xayu yaa waaw moom mooy delloo si yooyu yëpp mooy maye mooy dindi lépp yaa xayu ak ñàkk xeetu faible la waaw ñaata yoon ñàkk faible la waaw alxayum kon day dàq ñàkk waaw cër yuy dagg waaw bokkul ci xayu mooy ngiy dund ba nopi sa loxo dundatut ak yow mhm. ngay dund ba noppi ya, say bët dundatut ak yow kon al qayyum nañ ko firilu rek ci ñi dégg arab waaw di nga xam li ma la wax lu ko gëna a mi ngi ci mhm. euh zikar nak bu dee da nga ñak jot lool na nga tambalé ci 174 174 al khayyu ya hayyu ya qayyum 174 sa yo julé nga def ko sa yo julé ya. nga def ko su dé ko xamné mënu ko noonu mhm. su xeyé nako def bu guddee na ko def 174 lu néew la ci ku yàq ya- ku ñàkk jot bu dee koo xam ne sa jot xaw naa waaw xayu alxayuum yaa xayu yaa xayuum waaw 174 mooy juróom ñaar fukk ak ñeent pour suñ mbokki gambie yi juróom ñaar fukki yoon ak ñeent mm. bu la neexee julli gu nekk nga def ko 174 su la neexee saa boo xëyee nga def ko wala booy tëdd nga def ko guddi gu turu yàlla nag mm-hmm. bari gi du ci dara néew gi du ci dara mm parce que lepp na nek rek chiffre bu taxaw ta nek lu sax. hmm rek dal lay jariñ. su la neexee nak accélérer mbir mom mën na nek ci chiffre bu bari. mën na nexé nga jël 644 koko moy juroom ñaari Muhammad. moy juroom moy 644 moy juroom ben témèr hmm ak ñeent fuk ak ñent hmm bu la nexé hmm. euh, hmm. euh, hmm. nga jël ko ci hayyul xayum. hayyul xayum bu la nexé nga jël ko ci allahu akbar rabbul harsil azim. hmm moy 2743 kooku nag moo ci ëpp moo ëpp bayre hmm. parce que dafa tolloog wa alxaytu alayka mahabatan minni hmm. wala xadd hamat bi wa hamma biha wa in jundana lahum la xaalibun hmm. boo ko xadadee dafa tolok 2743 yi tolloowaat ak allahu Hayyul Qayyum fataahu rasahu kafi fi xan mujibu sariwa mujjibu dafay tolloowaat ak lii kon donc boo ko daf lay may bayre d'accord des na ko liggéey lim boo xam ne waaw wu kawe. Hmm. da koy liggéey ci quatre mille six cent. quatre mille six bu la neexee nga liggéey ko ci mille cent onze laa taxaf. su fekkee danga maanaam mooy da nekk ci xat-xat. Hmm. nga bëgg rek lii dañ immédiatement. liggéey ko mais mais loolu doo koy kii ba jeex am lu ñëw. amul lenn luy ñëw. Ah. waaw déedéet parce que. loolu talsam talsam moo koy def ci yàgg am lu ne yaa déedéet xoolal tur yàlla. waaw bu dee baatub arab buñ mën a firi ba mu leer. Hmm. um neex wir dal. amul lu muy wàññi. talsam nag. dafa garaaw mm, kooku du mosuma toog ci télé ma joxe ah, benn talsam ah, talsam ah. mooy loo xam ne mënoo koo firi comme tey nga ne euh, kam sax sa sun taxaya sun tam takk tajay sun nasal xobay sun muhammad day dii sun xam nga loolu xamoo ko du arab wala nga ne bi ay say xaroon say sun xas yi sun yes yi say sun yas loolu yooyu ay ay loolu mooy talsam mën naa indi dara loolu moom kenn du ko laal ta ta ta yaa ngi koy laal la ci waaw non man xam naa ko mën naa ko laalee mu ñëw na non mais du lu may musuma ko du ma joxe ci talsam ci télé waxal talsan rek voilà waaw <laughs> mais bul xëcc seex bi <laughs> waaw su ko defee ñi ma ko joxee lim ñu wuute yii waaw waaw kenn ku nekk ak la nga ca bëgg am na hmm. ñoo xam ne 174 bu ñu ko wirdee jàpp nañ ne wirduñu hmm. seen temps ëpp na ko seen jot ëpp na ko hmm. am na ñoo xam ne boo leen waxoon 1111 ñoom pare nañ ci parce que seen jot mayu leen ko loolu moo tax ma def ko ay lim yu wuute kon kenn ku nekk na lim bi ci tolloog sa mbir nga jël kii moom xanaa timbre major la mm. tëgg ba yi muy fëkk foofu ban xanaa mm. timbre major la ah quand même moom bañ ko waree fëgg dafa yàgg Cheikh Bara Ndiaye borom def gis euh, léegi nag programme koor bi noo ko tëralee looy tàggatoo nga taal di tëral programme koor bi waaw suba su nekk rek ajum bis bu nekk ñu ngi asalem 2 ginnaaw école ma jëy sàll waaw boo ñëwee ba ci école bi rek boo laajtee kër sëñ Bara Ndiaye dinañ la ko won bu dee ajjuma ñu ngi nekk Tëngéej cité seigne Mansour ci terminus 48 bi. Hmm. wala nga ñëw ba cité enseignant ci pharmacie GCHF nga laacc keur seigne bara wala nga ñëw GCHF wala nga ñëw keur keur kër xaw ma kañ laa koy man bu ma ko waxe rek mi sax mënu ko Saint Joseph wala nga ñëw keur Bam Ndiaye Coppet. nga laacc keur seigne bara Ndiaye. d'accord voilà d'accord ajjuma ju jot nag tëngéej la yendu bis ajjuma ju jot mais yeneen jour yëpp ñu ngi asalem de école ma yey d'accord di numéro téléphone bi bu ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis dem ci jamm sen aajo dal de faju ci jamm ak salam kon ñuy joxante dig dajé ajaratu beti ba benen yoon mu nekkoon fajum cosaan jërëjëf jërëjëf merci beaucoup euh, Sandiogou merci beaucoup Cheikh Bara Ndiaye borom def gis bàyyi sëñ Sidi mu ndaw euh, chéri Kati ñu ñu soxna Kati bu baax a baax waaye ñu ngi nuyu sëñ daam sëñ Fallou ak euh, Bàcc Gajaga moom it ñu koy ziar bu baax a baax ak ñi nga àndal ñëpp.